xam naa du ñàkk loo xam ne dinañ ko waxtaanee mu di actualité ku ne gis na nga nekk mbër moo xamante ni mbër mu jege jeunesse bi nga ku ne gis na nga nekk mbër moo xam ne souvent euh, lépp loo xam ne naqari na jeunesse bi rek bokk nga ci ñi nga xamante ne dañuy njëkk di wax fan yi ku ne gis bi ni mu demee ak jàpp bi nga xam ne jàpp nañ Ousmane Sonko keroog may seetaan sa benn interview nga yam yoo xam ne yaa ko ci yaa ngi ko ciy wax jàppoo Ousmane waaw adduna moom man moom may damay santal yàlla rek parce que tey ñun leader buñ toog dafa gëm yàlla te yàlla lay topp te tey gis nga yoonu dëgg boo ci nekkee bu ragal a wéet dina néew ñu la ci fekk man conseil bu ma koy jox tey mooy fa mu nekk noonu na gëm na tey yàllaa ko fa dugal bu mu gëm ne nit moo ko fa dugal tey Ousmane Sonko li mu war a doon nit mënu koo tere nit mënul tax du ko doon tey ba mu dudee kaso ñun ñii ñëpp boo dëkk bi ren la gën a def tek wala gisoo loolu Ousmane Sonko bañ ko doon jàpp avant ñu ko doon yóbbu ka dëkk mais ren la gën def tekk parce que ñun gëm nañ lu Ousmane Sonko di doon da koy doon te yaakaar naa ne fee mu nekk ne jommul kenn tey képp ku bëgg a doon dara ci réew mi di nga jaar foofu te foofu ku fa jaar ku ne yàlla am na lu mun namm si yow ba ci boo yi ngay gis nii erreur dal la nga dem kaso nii soo génnaatee nga xool sa réputation bu dee jumte moo wala dañ laa tooñ dugal la fa après nga xool sa boo génnee ci yoon bi nga jëm nit simple nii sax bu ñu la tooñee dugal la kaso sax après nga xool réputation bi nga jëm kon Ousmane Sonko ñun dañoo gën a am confiance ci moom tey yoon yoon la sekkal dara am na wala amul non loolu duñ ci wax parce que justice mooy moom

mais gis nañ aussi que ni depuis 2021 bi ñu ko njëkkee teg loxo xam nga Ousmane Sonko ci parcours politique am bu Sénégal ñoo ko mus di défendre mm. moom rek mus am lu ko défendre 2021 mm. mm. teg ko loxo ñu génne ko premier juin bi nga xam ne moo di état jeunesse bi mel lu reculé est-ce que jàppoon dañ ko abandonné wala dañ ko bàyyi kenn abandonné wu ko moo ñu sonn ñu gëm yàlla gëm ne moom lii mu ko dal nii xam na ni ndogal la te da koy dal te xam na ne ci kàttanu yàlla fii lu dul passé amul gis nga kaso gudd fan a ko mën. c'est-à-dire maanaam boo duggee kaso. 100 mm-hmm. boo fa dugee miir bi. Mm-hmm. da ngay dégg ñu bindal la gudd fan a mën kaso. Mm-hmm. kon da lay wóor ne kaso boobu noonu boo guddee fan rek. nañ la tëj un million de temps di nga génn. di nga génn parce que yàlla rek mën a tëj nit te du génn muy armée mais fii ku fi téye nit arrêté ko. bis dina ñëw mu génn. mais yéen jeunesse bi ànd ak moom est ce que jàpp leen ne 2024 euh, bi ngeen doon sabablu mën na caa mën na caa bokk est ce que jàpp leen lu ni mel far na far tab bi géej dootul am. mais dama ne la lenn. Mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. bu rëddee nga effacé. mu mm-hmm. rëddaat nga effacé. bu yàggee dalay effacé rëdd. bu boobaa doo gis ko effacé. cax la nag dama la wax cax. bu rëddee yow nga effacé. mu rëddaat nga effacé. dalay effacé ba pare rëdd. Ousmane Sonko li mu war a doon. nit bu yàlla bind mënu ko koo teree doon ci réew mi. 2024 Ousmane Sonko bu waree doon président kullu amul nit bu yàlla bind bu ko mën a teree doon président te fii nag ku nekk am nga sa xol bëgg ku la neex mm-hmm. ku nekk ñun Sénégal lañ dëkk mm-hmm. ñun ay citoyen lañ ni ñëpp ñun tuddeewuñu Burkina nekkuñu Cameroun nekkuñu Nigéria ay sénégalais lañ ñun tey jii nii dëkk bi ñun ñoo ko joxoon Macky Sall ñun la neexoon ñu jox ko Macky Sall ñu xeexaloon Macky Sall si lañ bokk mais tey bu ñu xoolee dëkk bi dem nii ñu bëgg tànn benn nit jox ko tey ndogal yëpp di dal ci moom dañuy santaat yàlla ne alhamdulilah rabil alamin te xam ne bis bu ko téyee dina xam ne ñun jeunesse bi tey am na luñ ko apporter tey bu mu téyee réew mi defal ñu luñ bëgg tey ñun joxuñu Ousmane Sonko suñu réew pour mu yàq ko joxuñu Ousmane Sonko suñu réew pour mu géeree ko joxuñu Ousmane Sonko suñu réew pour mu xeexee ko dañ ko jox pour mu defal Sénégal pour ndawu Sénégal yi jeunesse Sénégal bi liggéey situation yi am fi jeex te Ousmane Sonko mën nañu see dimbali. barki Demba Ndiaye lañu ministre de la jeunesse nu mu tudd. Pape Malick Ndour barki Demba Ndiaye lañu nax. récupérer suñu photocopie carte d'identité yëpp nga def ñu utal liggéey ñun ñëpp boo yëpp. fii Sénégal xaaj bi yëpp Guédiawaye ak Ndakaaroog Parcelles ak Thiaroye ñëpp seen photocopie carte d'identité mu ngi si ministre de la jeunesse. ne da ngay liggéey affaire de pavage. leen amul lenn première korité bi dañoo nax nit ñi. paq leen envoyé ku nekk quatre vingt mille quatre vingt mille. Hmm. ne leen comme que korité la su passé di ngeen liggéey ba nii may waxee yow amul benn bu ñu ne kaay liggéey te seen photocopie yaa ngi fa. Hmm. léegi nañ ñu delloo suñuy photocopie carte d'identité dañ koo soxla. Hmm. parce que suñu photocopie carte d'identité xamuñu lu ñuy def foofu. lan la fay def ba ñuy wax waxuñu kaa leen politique dañ ñoo ne indi leen jeunesse ñu jàppale leen ñu liggéey. loolu Pape Malick Ndour ñun ba muy waxuñu dafa ne waxuma kenn na ñëw politique. Hmm. ne Macha bu la neexee faralal Ousmane Sonko. guy gi 95 bu la neexee faralal Malick Gakko xaaf miy toog bu la neexee faralal ku la neex leader bu la neex. Hmm. mais lii pour jeunesse Sénégal la. Hmm. dañ leen di jox pour jeunesse bi liggéey. semeur bi wàññi. mais lool yow bu ñu ko waxee nga dem. dëgg la ba tey ci Ousmane Sonko laay desandi parce que gis nañ que li ko état di toppee ba tax ñu jàpp ko bokk na ci wàllum terrorisme ak waral ñu tas parti ak wàllum discours violent yéen ñu ànd ak moom leen aussi que ni dafa xawoon na violence c' peut être un peu exagéré wala lu ni mel wala da ngeen a jàpp ni dañ ko tooñ carrément. mais xam nga foofu man jànguma comme intellectuel yooyu man jànguma comme terrorisme bi nga wax. boo bëggee ma tontu la dama koy tekkil ci olof. ma xam li nga wax ma tontul parce que boo ma nee terrorisme ma tontu fi leneen loo xamante ne tey mun na danga ma koy tekkil ma xam luy terrorisme xam luy li nga mujjee wax tamit parce que mënu ma tontu li ma xamul. daa tekkil waaw hmm. mooy mooy jëmm nga xam ni maanaam yàq ak salfaañi rek moo ko tax a jóg maanaam koo xam ni attan naa rey doomu aadama ngir bëgg-bëggam wala lu du mel attan naa taal ab dëkk ngir bëgg-bëgg boppam wala ngir gëm-gëmu boppam loolu la état yëkkati jëmali ko ci Ousmane Sonko ni kii am dafa day lëkkaloo ak terroriste ak lu ni mel maam ñoo xam ne yàq rek mën a tax ju ak salfaañi ginnaaw loolu neneen discours am dafa violent neneen da doon complot ngir daaneel état loolu yëpp mu nekk huit chefs d'accusation yoo xam dañ ko ci benn partisan bu topp Ousmane boo déggee ñu ko yëkkati jëmale sa leader réaction nga ciy am sant mhm. parce que gis nga nit am naa ci benn grand yàggul dara nit jàpp nañ la tëj la dix ans kaso jiñ la ni da ngaa violence nañ la jiiñ te da ngaa dem tëdd 10 ans yi ba mu jeex te billaahi wallaay defoo gis nga ndog-ndog yàllaa koy def ci doomu aadama ak nu muy ñëwee rek ak kalam bu muy ñëwee yow di ma posé question bi xam nga ne Ousmane Sonko dundul loolu yow yow yow mu koy posé nii kon loolu dañ koy santee yàlla ndogal mënul weesu si doomu aadama mënul nekk tey yow sa ndogal yow ñëw na démb tey soogu ñëw yaa ngi dox xamoo luy ñëw suba mais te lu ñëw sante ko yàlla te xam ne yàlla lii la la namm yow Ousmane Sonko lii ñëw ci moom la yàlla ci moom gis nga yoon bu naree neex day metti te ku ragal mu metti nag xalaat bul xalaat neexaay ba déggoo ñu ne la yoon bu bëree xaaxaam da nga koy xuus room mu mën a yegg fa nga jëm mais booy moytu xaaxaam yi doo yegg ku ko ku ko ñeme mooy dem Ousmane Sonko lu mu doon ñeme na ko du nee nañ loolu la toppee Sénégal li ci kanam rawili bat loolu lañ ko jàppee li ci kanam rawili bat yàlla bëri na sutura parce que ñun tamit nekkuñu si si réewu ay ay ay ay njaag ay ay nu tudd sax nu ñu koy waxatee sax yow balaa ma fay tooñ benn làkk maanaam réew mu nekkul jullit ay juif nekkuñu réew juif réewu jullit lañ nekk réewu Seydina Muhammad lañ nekk tey yaakaar naa ne dëgg la ñuy dund te dëgg nag yaakaar naa ne yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg day ñëw mais tey nañ bàyyi lépp ak yàlla rek nañ bàyyi lépp loxo yàlla suñu borom parce que yàlla tamit bëtam bi rëy na de mu ngi xëpp lépp mu ngi xool tey kenn du la wax lii yoon la wala lii du yoon parce que réew mi gis nga léegi ni mu demee dëgg sax kenn du ko wax kenn du wax dëgg. mais fa mu nekk est-ce que far ami jafe-jafe. ñaan ñu ko yàlla mais génn àdduna wala leen parce que gis nañ bi ñu ko jàppee ba léegi dafa grève de faim pendant cinq jours tey jii parce que li muy bañ mooy état bu Sénégal jox ko comprimé nee moom comprimé boppam lay naan war a lékkul naanut nangut a faju loolu aussi est-ce que jàpp ngeen yéen ñi ànd moom que ni. sant yàlla rek. sant yàlla bu génnoon la yem. Hmm. fa la borom ku nekk mënoo la de lu mu namm hmm. a doon wala bu yemoon bu yemoon foofu àdduna ñu ñëpp dañuy jàpp ba set julliwaat ñaaru ràq dem rob ko ñaanal ko yàlla te xam ne lu mu disoo bu mu jëloon ci ñun yéene bi bu mu amoon ci ñun sénégalais pour tey benn match tey bu jugee yàlla dimbali ko mu am lu mu dimbalee waajuram tey bëri na fi ay jeunesse yoo xamante ne tey ñoom ñooy seen taawu yaay mënuñoo dimbali seen waajur parce que amuñu luñ liggéey te bëgg nañ liggéey tey dama la ko jox exemple sànq ne le ministre de a liggéey teral seen waajur moo tax ñu dem joxe seen kayit bañ leen ko waxee ñoom ñëpp a fees fee place de souvenir mhm. parce que dañoo bëgg a liggéey léegi Ousmane loolu lañ bëgg a defal mhm. tey nee nañ du fi am lii la lii la nañ jël lépp teg ko si loxo yàlla yàlla suñu borom mooy rayee de nit rayewul xam nga Antoine Diome mooy ku jiite police yi ministre de l'intérieur waaw fan yi dafa am benn bis bu tàkk. Mhm. dix minutes après wala quelques minutes après mu teew fa. Mhm. yëkkati wàllum terrorisme comme ni ma la ko waxee yëmale ci loolu. Mhm. ni ay doomu aadama euh, am na ñaar ñu ca gaañu mais tamit Sénégal yi bëree weddi ko mbir mu ni mel bi nga ko déggee jàngat ko lii ci internet nan ko gisee. loolu moom seetaanu gu ko maîtriser gu ko. parce que dama koy dégg nii rek te man bëgg wax si lu ma maîtriser wul. parce que bis boobu a mais comme nii nii nii moom loolu man gisaguma ko ba tey li nga wax si Antoine Diome seetaanaguma ko bis bii ngay wax nii seetaanaguma ko. mais mhm. ay discours am d'habitude koy gis moom ministre de l'intérieur. du ma seetaan sax discours am ay discours d'accord du ma seetaan sax discours am liggéey ci internet ñu bari bari yàqule tey yan kàddu nga ci yëkkati. mais tey sans politique tey tey. tey ñun dañuy soxla yu ñuy doxi tey ñun am nañ man tey ñaata na xaalis bari moo la jël sama téléphone ba tey parce que affaire de connexion te yoonu politique nekku si mhm. am na ñu war a liggéey am na ñoo xam ne si internet lañ nekk te yoonu politique nekku si tey politique yàgg na fee am mais musul demee nii mhm. ñun politique nañ politique bu ne Sénégal politique na politique bu ne musul demee nii gars yi nañ gëstuwaat rek jiital diine bi li ma mën a wax mooy nañ jiital diine bi nañ dem gëstuwaat diine bi tegaat diina bi ci politique bi jiital diine bi ñu dem mhm. mais ñu ngi wàcc yoonu diine bi nag Mm-hmm. yoon dina boobu laa desandi Sénégal yi ba dañu yëkkat seen kàddu nii xalif généraux yi dañoo seetaan askan wi ci mbirum Ousmane Sonko mi ndax buñ xoolee atum 2021 ba état ba askanu Sénégal jëkkoo Macky Sall dañoo defoon délégation ñaan njëkk Macky euh, euh, Ousmane Sonko ni nañ bàyyi mu sedd tey ñu ko loxo kenn waxut est-ce que da nga jàpp ne xalif généraux yi dañoo dañoo dañoo abandonné man loolu dama ciy contre ñuy wax mm-hmm. ngir yàlla ak yeneen tamit gars yi nañ jël ku siy xeex xeex bi na nga nekk si xeex mi bàyyi xalifa yi bàyyi kilifa diine yi parce que tamit kilifa diine yi wax rek lañ mën suñu waxee dégguñu tamit mënuñ lu dul toog seen rukk jàpp seen ñaamur téye seen kurus bañ dëkk bi tàq tey kilifa diine tey woowu ñu leen si affaire politique dañ leen woo tey si diine tey si diine lañ leen woo ñoom lu ñu mën a wax rek mooy bàyyi leen ñu bàyyi jàpp leen ñu jàpp loolu rek lañ ñu mënal suñu waxee loolu ñun dégguñu suñu nee bàyyi leen bàyyi ñu ñu ne ñu jàpp jàppuñu mais ñoom ku si nekk da toog sa ruq yow tey man soo ma fekkoon may xeex fii may rayante nga am si man cër nga ñëw ne ma maca yemal faalewu ma la nga ne ma yemal faalewu ma la nga ne ma yemal ma tourné tontu la da ngay dem bàyyi ma fa doo taxaw ne da ngay xeexam man pour ma yem de dangay dem baay ma fa mais kilifa diine yi tamit noonu la demee génn nañ sorti dëkk bi jàmm lañ fi bëgg nañ wax jàmm ñaata yoon lañ ko fi wax jàmm amul mais léegi arrête arrête quoi. président Macky Sall nu mu yore Sénégal ban jàngat nga ci am. neexuñu neexuñu suñu waxantee dëgg neexuñu parce que ñun li ñuy jàngatoon nii dafa metti neexuñu mais heureusement ba am na grandeur bi nga xam ne nee na demul troisième mandat. man yaakaaroon naa ne coow li yëpp mën na jeex parce que tey moom Macky Sall ñoo la fi tegoon tey gis nga ni population bi yow bëgguñu nga nekk fi ah, yow def nga sa sorti nee nga demoo troisième mandat mais tey jàmm war na am loolu kese moo xañoon jàmm bi ci réew mi léegi loolu jeex na jàmm war na am ci réew mi dara warul xañ jàmm ci réew mi nii amul lu ko mën a xañ président Macky Sall demul troisième mandat moo nekkoon guerre bi moo nekkoon xeex bi demul jàmm war na am léegi lan moo war a mën a teye jàmm ci réew mi Sénégal lan moo tax tey ñu war koo jël def ko réew moo xamante ne réewu ziif la Sénégal lan moo tax tey ñu war a nekk réewu rayante réewu ñun ak alkaati yi jàppal bàyyil tiire nañ fii rey nañ alkaati bi fii rey nañ booy bi fii lan moo tax ñun ñu war a dund loolu ñun bañ juddoo ba tey musuma gis lii xew senegal xew senegal man ñun lan moo tax tey ñu war a dund lii ñun tey lan moo ñu wàcc si ak lan lañ def lan lañ def tey lu ñaaw ba ñun tey lii war ñoo wàcc suñu réew da toog sa biir néeg sax léegi dafa dund lu métti ay loxolo masin di la fekk ba sa biir néeg ngay am ay maam yu màgget am sa yaay màgget say ya say mag asma ñu lay fekk ba sa biir néeg di la fa dóor loxolo masin moto dawatul ku war a xëy dem lijjanti sa bopp dematoo xamoo dépense bi nga bàyyi kër ga nit ñi yaa koy lijjanti wala lijjanti ko yaay dem xëy wala xëyoo ñu ne la moto bu mu dawati nga toog sa kër cinq jours ba pare oh réew mi kenn mënul wax lépp daal. kenn mënul wax lépp.